salaamaaleykum waa Thiès salaamaaleykum alors donc ñun dañu fi daje tey pour nettoyer école club de Thiers parce que ñun ñëpp ay anciens élèves club de Thiers lan jàpp ni club de Thiers li ñu nekk tey jii moo ko def ci ñun donc ñu war a dellu siwaat delloo njukkal club de Thiers que maanaam daal mooy bu doon club de Thiers nit la bu doon enseignant la tey lii lañ koy jox comme àllarba donc loolu moo ñu waral suñu ñëwaay suñu teewaay tey fii. waaw waaw vraiment école bi changé na parce que ñun bi ñu fiy jàng daanaka benn mbaar la woon. benn mbaar lañ ko daan tuddee tey mu dem ba am changement am na clôture am na lépp mais wax dëgg yàlla ci côté salubrité bi am lu ci desoon bi ñu fi ñëwee keroog xool def suñuy visite xool ni fii am na lu mu laaj ñun ñu def ci suñu wàll aussi moo waraloon tey jii ñu teew fi jéem a xool lan lañ ci mën a def te ci loolu lañ fi xëyee depuis huit ci suba ba léegi ñoo ngi fi waaw macha allah. waaw bien sûr bien sûr am na lu ñu bëgg a ci école bi mooy dañu bëgg benn mooy ñi fi nekk tey di suñuy doom di suñuy raq di suñuy jarbaat jàngee ci ñun benn mooy que ni école bi am na ñu mu formé ñu fi génnee tey nekk ay cadre feneen nekk ay cadre ci dëkk bi ñoom ñu xam ni ñoom it war nañu mën a nekk ay cadre suba moom moo waral tey jii ñun ñu ñëw teew wan leen ni ñun ñu fi doon jàngoon ñoo tekki ba tey alhamdulilah ñëw di eh, def dara ci école bi donc ñuy ñaan ñu bëgg xool aussi xale yi ndaw yi fi nekk jàngee ci ñun que ëllëg ci biir ñoom ñu ñoo jàpp ci pour que ñu xam ni fii seen école la école bu la formé ba nga nekk dara wax dëgg yàlla nga war ko mën a delloo njëkkal donc ci tànk yooyu daal lañu nekk nii. waa appel bi ñuy lancé autorités yi mooy vraiment toilettes yi ku gisoon ni mu menoon fan yi passé yëpp te wax dëgg yàlla ay xale yu ndaw nekk fi ay tout tànk te ay xale yi nga xamante ne maximum 12 ans la 13 ans moo fi maximum 12 ans 13 ans te mu nekk ci situation yi nii toilette yi ni ñu ko fekkee woon euh, doy na waar lool lool lool lool te ñi ngi ñaan ñëpp képp ku juddoo képp ku jàngee Thiès képp ku juddoo Thiès te jàngee fii club de Thiès nga xam ni fii wax dëgg yàlla bërëb boo war a sàmm la bërëb boo war a defal dara la Euh, euh, ñun tey amuñu ay millions amuñu ay milliards ba mën fi tabax yi salle de classe waaye incha allah lépp lu ñu mën ci suñu doole ak néew dinañ ko def pour école bi. waaw lii mooy première action bi daanaka mën nañu wax ni sax mën na nekk deuxième action ndax defoon nañu benn délégation seeti ñenn ci ñi ñu jàngaloon ci école bi ñi nga xam te ñoo ñu yoroon jàngal ñu dem waxtaan ak ñoom saafonteeg ñoom. donc euh, tey jii bi mooy deuxième action mooy dañoo ñëw pour nettoyer école bi dinañ dem aussi ci beneen troisième action moo jëm ci ñu primer meilleurs élèves yi ak élèves yu démunis yi donc jàppale leen ba kenn ku ci nekk mën a am euh, mën a tekki ëllëg quoi waa suñu kàddu bu mujj daal mooy euh, dinaa bàyyi tuuti sama xarit Chérif mu nekk fii wax ci donc ñi ngi ñaan daal képp ku nekk ci biir Thiès autorité Euh, boo mënti nekk muy ci côté religion côté politique côté bu mu mënti nekk social te xam ni fii suñu suñuy doom ñoo fi nekk nu ñu mën a def ba protéger leen nañu ko def nañu fexe defal leen ci teg teg leen ci benn environnement bu sain pour que ñoom ñu mën a jàng ëllëg tekki mën ñu jëriñ donc loolu la woon ko merci. comme ñu ngi leen di nuyu euh, di leen sant bu baax euh, lii nag dañ koy rafetlu muy suñu première édition maanaam deuxième édition la sax parce que Cheikh wax na lépp. Euh, li ñu ciy wax rek moom mooy euh, ñi ngi lancé appel les autorités ñi nga xamante ne lu mel ne le ministre madame le ministre Ndeye Tické Ndiaye Diop ñi ngi koy lancé appel parce que fii centre de vote la ñi ngi lancé appel euh, Demba Diouf directeur de cabinet du président de la République ñi ngi lancé tamit lu mel ne docteur Ndiaye képp kuy autorité ta nga nekk ci zone ouest bi rek ñi ngi lay woo ay docteur Djibi Sarr ñi ngi leen di woo parce que état bi école bi nekkee nii jamono ji graaw na trop parce que boo xoolee du si sa yaram day daw parce que suñuy doom ak suñuy jarbaat ak suñuy raq rek ñoom ñoo fiy jàngee te établissement bu ñu ko waxee rek war na mën a nekk loo xamante ne soo ko xoolee rek di nga ko xaw a rafetlu waaw ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen woo ci liggéey bi comme li président de la république woote mu tombee ak suñu première édition ñu ngi ciy woo képp koo xamante ne bonne volonté nga ci dëkk bi rek ñu ngi leen ciy woo. waaw euh, ñu bañ a fàtte tamit ni association des parents d'élèves aussi ñëw nañu fii ak bu rafet vraiment biñ leen waxee keroog euh, ni dañ fiy ñëw. ñoom ñëpp ñëw nañ jàpp ci liggéey bi ñi ngi fii ak ñun ci biir euh, seen président mi ngi fii vice président mi ngi fii aussi ak ki yor commission salubrité ñu ngi fii ñoom ñëpp ñu ngi ñëw jàppalañ ci liggéey bi xëy na liggéey bi du jeex ci benn fan mais liñ ci mën a def tey dinañ ko def di ñaan yàlla bis bu ñu programmé waatee beneen jour pour ñëw fi ko ñi ñi ñuy dégg tey gi bu boobaa bu ñu ko médiatiser xëy na bu ñu ko déggee kenn ku nekk ñëw jàppale ñu ndax ñun ñëpp ñoom moom waar wi daal jërë ngeen jëf